président comme nous ko ñëpp bi mbir mi amé ci Sénégal li mu njëkk a def moom euh, mettre en place li ñuy programme de résilience économique et sociale. programme bobu dafa jël benn fonds bu am solo tuddu fonds force Covid 19 bu nekk ci 1000 milliards pour jàppale ko ñëpp ko xamné ne de mbass mi amna na ci sa liggéey donc lolu aussi dañ koy rafetlu bu baax mais rafetlu surtout mesure d'accompagnement bi mu jël parce que 1000 milliards de l'OTOTI c'est presque le quart du budget du Sénégal mu ne dinaa ut nag benn comité de suivi bo xam dama koy jox ko xam amna ci mom yakar pour mu xolal ma mbir mi nan la ko état bi ak opérateur yi nga xam mom la tek sen loxo xaalis bi nan lañ koy jëfëndiko loolu nak lu ama am solo la ci cadre bobu lañ ñëw tay di waxtaan cadre bobu waxtaan bi moy war ngeen liggéey mu gaaw war ngeen liggéey mu jàppandal war ngeen liggéey pour xaalis bi dem ci loxo ñi nga xam ne ñoo ko war a moom waaye war ngeen liggéey aussi pour bàyyi xel ne xaalis boobu kat askan bi moo ko moom war ngeen ko def ci condition yoo xam ne dëppoon na ak yoon. mbir mi nag tey bu ñu koy xayma moom bu ñu noon téeméer euh, juróom-ñetti fukki ak juróom-benn maanaam sotti na maanaam quatre-vingt-six quatre-vingt-six pour cent ci li ñu waroon def def nañ ko euh, bu dee kit alimentaire yi joxe nañ bu dee xaalis bi presque cent pour cent xaalis bi mobiliser nañ ko ci sunu compte. mais presque 90 pour xaalis bi ñu mobiliser suñu compte yóbbu nañ ko jox nañ ko. dem ci gaaru Thiers, par exemple 100 de mobilisation ci lañ joxe ci xaalis bi donc li ñu leen waroon jox yëpp muy 600 millions de francs CFA mobiliser nañ ko joxe nañ aussi 554 millions ci 600 millions yooyu. 14 millions moo des loo xam ne gouverneur la ñuy xaar pour jox ko donc loolu mooy lu am solo à Dakar Dem dik liñ ko waroon jox jox nañ ko ko à 100 pour ñoom ñu ngi fi woon euh, firndeel nañu loolu euh, AFTU. ñoom it li ñu waroon jot jot nañ ko à 100 pour cent donc loolu daal mooy situation bi nga xam ne mu ngi fi li ci des nag am na ay difficulté yu expliquer pourquoi ñooñu waroon jot maanaam taxi yi jotuñu pourquoi moto jakarta ba léegi jotuñu pourquoi ba léegi car rapide njaganjaay jotaguñu loolu explication bi ñaar la benn bi mooy ñoom dañu organiser wul comme ni aftu organiser pour mën a jot xaalis bi ci fanam yu gaaw te wóor beneen bi mooy euh, il faut que ñu def seen recensement donc dañ bëgg a jox koo xam ne am nga oto sa oto nekk na à jour mu ngi doon daw ba bi mbas mi di am te loolu nag faaw liggéey la lay laaj boo xam ne nii day wóoral parce que li tardeel daal mooy wóoral ba nga xam ne ku ci warut a jot doo ci jot ki ko war a jot rek moo koy jot